mu bañ lànk tëdd ci suuf ne du dégage mbokk yi foog ñu comprendre ne waxoon naa ko naa ko waxaat bu fekkee cim réew dañuy sàcc pétrolu askan wi bu fekkee cim réew dañuy sàcc gazu askan wi bu fekkee cim réew dañuy sàcc suufu askan wi ak alalu askan wi ak ñoom seen munoo muusa ko waane ba ñii di ko def du ñu jéem a sàcc élection askan wi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 Cheikh Dia mooy maire nañu ànd ñoom wax bi Timbo dégage Timbo dégage Timbo dégage ku ngeen